du woo nit naan koo waxal ci nit nangam Amady Badiane du sant nit mission dépassé noonu kooku xaritu waali la kooku albumu waali sekk international bi da cee liggéey lu ne kilimu waali yi moo ko naan defar soo waali yi moo ko defar Amady Badiane beneen affaire la. du moroomu kenn Amady bajaan ku koy siis wala nga koy iñaane wala nga koy soxore ko la Amady beneen affaire la kooku mention spéciale fu waali Seck egg Amady Badiane la ba muy metti Amady Badiane la gis première concert Amady sol lu bon. nit ñi gamuñu ko muy war ci mbedd yi di joxe ay seede naan déglu leen ko kii mooy doomu Papa Thione bus ba waali yegg fii moom la kon Amady Badiane génnee leen ko seen ñëfi du ñàkk fayda yii ñi fi ñëw ees di diggante Amady du dox ci yooyu doxul ci lu ñàkk fayda ñi may joteel laay waxal xam naa li tax ma leen koy wax te xam naa ñi may waxal waaw kay noonu la demee dama bëgg mu leer mais Adamo ma laaj la benn affaire euh, noppi leen damaa bëgg damaa bëgg ngeen teg seen euh, sax kenn waru ko tudd xam nga tax parce que euh, moom démb la waaw kay. loolu laa bëgg mu leer. waaw léegi maanaam Adamo xam nga xam nga sénégalais. waaw. y' a pas plus. liggéeyu Wally Seck ñi ci gën a sonn Amady Badiane la. man Amady Badiane la ñoom ñëpp. Ndiaga Oro may ma ma. déglu leen ma ñi yàgg ñeeg ñëpp. wuy ma déglu dé ku bëgg a dugg Ramadan ngeen siis ko. loolu waaw ñi bëgg a dugg Ramadan ci siis non non ñun siis ñu kenn de. ñii bëgg a dugg Ramadan di ci boole loo xamante si nii bokkuñu si moom la ñuy wax mais siis ñu kenn. parce que xam nga xam nga yow Armo Armo xam nga yow fan nga réeree. ooy pos da nga ja yow yow da nga ñëw tey benn instant yi ba pare démb yaa ngi wax ci affaire Amady Badiane comme si que yow Amady Badiane da lay wax lu ko metti ci waal waali. Amady musuma wax ci waali dara. mo li may wuyu ma Amady nu nettali déglu ma rek ma wax la kan mooy Amady Badiane Amady eh, eh, wuyu ma Lamine may ma ma ñëw ah. bàyyil di jaxase ak se waxu saytaane ndey Amady Badiane du wax nit lu ñaaw eh, Amady Badiane du woo nit naan koo waxal ci nit nangam Amady Badiane du sant nit mission dépassé noonu kooku xaritu waali la kooku albumu waali Seck international bi da ca liggéey lu ne kilibu waali yi moo ko naan defar son waali yi moo ko defar Amady Badiane beneen affaire la.